Thierno Bachir képp mooy sëriñ loolu lañ màgg lool lañ xam kon liñ koy ñaanal yàlla mooy yàlla gën koo yàggal yàgg gu ànd ak wér nag du li wala fi wax naan ba weer ba ñuy weer ak a weer yi déedéet yàgg goo xam ne si day ànd ak wér gi yaram yàlla na ko yàlla defal man daal fii taalibe laa fi doon lu may xam fii laa koy xamee lu may wax fii laa ko waxee nekk fi doom tim fa tabaarakallahu kon que mi calmina mi juurima eeyi eh, الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه wa sallam sëñ Sall jërëjëf pour dëggal li nga wax rek cheikh alxaaj umarul fuutiyu radiallahu taala anhu yàlla may na ko wilaaya yàlla may na ko xam-xam yàlla may na ko wër na àdduna bi fu amul fu gën a bëri ci àdduna bi tànkam dëgg na fa mu jël jël xelam pour défar tariqam du tuddee ko umari yu ci digënté bi yanantu yalla sallallahu alayhi wasallam feñu ko mu ne ko nak man de li la fas yoonu na def te bëggon na la gis mu ne ko cheikh oumar tariqa yuma tariqa yuma garanti woon yëpp bi si dëgg bu ma ci gëna wolu moy tariqa cheikh radiyallahu taala anhu legi nak, da ngay xol mu ne ko mu ne ko anta aban wa umman yow yaay yaay yow yaay papa léegi kay amatuma ndogal amatuma ndigal yeb mu ngi sa loxo mu ne kon demal jàppit areega Cheikh Tidiane lolou kep ku ko yenant bi wax fala bëgg nga def ko mom ba garantie bobu la am ci yenant bi alhamdulilah rabbil alamin li nga wax tam ci kep ku ku tok ci place boko ko motul woon sax nga mot ko amna bëss ci ay bés Thierno Seydou nour Cheikh omar wo mbokk sama sama papi yeb mu wolé na ñew Dakar fekk ci ko fa ku nekk jël sa auto ak sa yére bu rafet nga ñëw seet si ma nga ñëw ma ñëw seet si Thierno Thierno Seydou Nourou Thierno mu ngi ñëw xaw ma ci oto la jaar xaw ma ci saret la jaar taalibe la moom xam nga suufi yu la mu def fexe ba egg Dakar fekk ñëpp toog te dafa doon taw yéram ñëpp tooy Thierno Thierno Seydou ne ko euh, Bachirou a ari ñëw nga mu ne ko ñëw na mu neen dem leen doon wax yéen yéen yéen magam yi dem leen doon wax kii mooy Thierno Bachir te bis bu bis dina ñëw di ngeen xam ne moom mooy Thierno Bachir mooy bis bi mooy bis bi tey loolu rek dëggal sa wax rek ñun nag amuñu ko dul moom ñun famille Cheikh Oumar lu yàggul def na ziyaara xalwaar téeméer ak juróom fukk mandata surtout Cheikh yu jóge Mali jóge Guinée jóge ci yéen ñëw représenté ñeneen ñëpp ñu mënul ñëw pour jox ko suñu baat takk suñu buum jox ko suñu baat moom mooy suñu xalifa tey ci kaw suuf amuñu keneen ku dul Cheikh Omar moom ñun ñaan yàlla yàlla na ko yàlla yàggal fi ñun tam ñu ngi lay sant di la gërëm ndax gis nañu li nga def keroog yàlla moo lay fay yàlla na la yàlla fay yàlla moo lay fay yàlla na la yàlla fay alhamdulilah alhamdulilah rabbil alamin hmm, allah macha allah. Hmm? ceerno o wiyanka de de ko kaapa muntaga madari eh, Ceerno eh, dafa am limu mu wax ci ju ji Euh, dafa am li mu ko defal jafe na surtout Cheikh Omar bi koy def jafe na torop déedéet nee na bariwul sax nee na Ceerno Muntaqa mii daan na def Laylatul Qadri comme guddi gii tey fuute yëpp daan nañ ko daan nañ ko wuy si foofu ci ñaayen pendaaw nee na moom Ceerno Muntaqa bu ma xamee Laylatul Qadri papam di xalifam Ceerno Bachir nu mu toll tey jii mu boo waa fuuta yëpp mu ne laylatul qadri bi ma doon def bii de yéen ñun ñëpp dama bëgg ñu bàyyi sama laylatul qadri bii ñun ñëpp bu laylatul qadri jotee ñu dem Louga fekk ci sama papa sama xalifa ñu dem ñi fekk sama papa sama xalifa Thierno Bachir ci laylatul qadram bi nee ne doyloowul foofu wax na ko aussi ci rajo wax na ko ci fépp fu ñu war a déggee de nee ne bariwul setu Cheikh Oumar bu mel ni moom ak ki koy def nee na setu Cheikh Oumar nangul setu Cheikh Oumar nawleem a fekk nangu dëgg dëgg dëgg dëgg bu dëggu fekk du ragal du tiitaange du dara nee na bariwul de moom nag ngeen seedeel ko kii defal na ko lii ak ñi mu àndal ñépp képp ko ànd ak moom Thierno Mountakha képp ku nekk ak moom ne moom mii la nekkal